mbokki internaute de Dakar Midi bonjour ñu ngi leen di dalal ci seen émission petite promenade du jour muy micro trottoir bi nga xamante ne dafay dugg ci askan wi di leen laaj seeni xalaat ci xew xew jamono actualité gi nu tey ginnaaw bi ñu leen ñaanee atum jàmm ndax danoo dugg ci at mu bees muy sunu premier numéro petite promenade du jour ci 2019 bi donc nos meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez euh, à chaque fois par rapport à nos interventions par rapport à nos sujets d'actualité tey ñu ngi bëgga a waxtaanee mbiru politique concernant le cas Karim Wade donc il s'est trouvé que tey dañoo xëy ak une information concernant mbiru candidature am donc il a renoncé à sa nationalité française pour pouvoir participer aux élections présidentielles yii di ñëw ci février 2019 nu wàccoon ci askan wi rek laaj leen seen xalaat par rapport ak googu situation. Ah, ça laisse à exemple euh, du point de vue juridique. si est-ce que le Conseil constitutionnel va valider sa candidature ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose de bien pour euh, vraiment euh, ku mel ni moom ndax xam nañ ne euh, loolu mënoon na nekk gàllankoor ci candidature am levé na ko donc ñi ngi bàyyi justice peut-être ak fu muy mujjeek situation boobu mais ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax baax. bon ñibbisi bi ak ñibbisiwul bi peut-être que loolu euh, xam naa waa comité directeur euh, bu PDS peut-être ñoo ñu war a étayer parce que euh, ñu ngi koy annoncé depuis presque plus de deux mois ci réew mi mais gisaguñ ko alors que sénégalais dafa li mu gis mooy li mu gëm mooy ki ki ki ki ki muy dundal c'est c'est très important parce que pour politique c'est la proximité maanaam ci ngay gis rek ngay mën Euh, peut-être épouser ay ay ay courant de pensée am wala ay gis-gisam biir Sénégal man lu ma koy jox mooy comme conseil euh, en tant que sénégalais euh, si les blanchi bon par la justice parce que dafa nekkoon ci ci ci wàllum justice ci am ay ay ay ay ay ay ay décision de justice yoo xam ne peut-être moom subir na ko bu fekkee loolu amul il n'a qu'à rentrer au pays et faire face à, à, à, aux populations sénégalaises euh, proposer leen euh, son programme politique. waaw juste Karim euh, pour renoncer national thème français bi mais loolu taxul mu nekk président parce que waxoon nañ ko fii Karim kenn du ko téye kenn du ko tëj Karim dina ñëw ba léegi ñëwul lépp ay question de Sénégal mais Sénégal lambda bi xam na sax xamuñ dara dara xam nañ Karim même bu delloo woon kayitam yëpp mënul nekk président man sama xalaat bu gàtt mënul nekk président. Euh, parce que Karim dafa ma manqué nekk caacaayu sénégalais même bu dee mën a gérance mën a bokk si gouvernement nag gérer gouverner mais mënul nekk pré mënul nekk élu président. waaw même bu renoncé mais dafa am loo xam ne nii lu ba lu Badji meloon nekk Badji Badji dafa nekko sénégalais mën a composé Badji waaw sénégalais la mën a yor réew mi mais moom mënut a yor réew mi man sama xalaat bu gàtt. yàggoon nañ ko fi wax euh, Karim day ñëw du ñëw même Karim Macky wàccoon tamit man gisuma présidence am ko. non gisuma ko impact euh, Karim waaw ah. bon bon ñu fi nekk mooy lan mooy euh, Sonko ñoo fi nekk ak PUR ak Macky ñoom laa gis kii bi ñeneen ñëpp dañu langaamu nii pour xaar deuxième euh, mandat Macky bu pare ñu mën a taxaw jeex na voilà ñoo ko déggandoo on n'a pas eu assez d'intervenants ci mbir mi waaye dégg ngeen kenn ku ne ci ñoom la mu wax par rapport ak situation bi dëgg la naam Karim situation am dafa xaw a doy waar. ndax koo xam ne boobu ba tey gisaguñ ko ci réew mi waaye teewul ñun ñii di journaliste à chaque fois bu ñu dajee ak ñoom moo xam ci conférence de presse yi wala point de presse yi bu ñu leen ci question mbiru Karim saa su ne dañuy wax c'est une question maanaam de stratégie moo tax ba tey pour mbiru ñëw mënuñu ci prononcé wu. tey ñu xëy ñu wax ni daf dafa renoncé maanaam à sa nationalité française pour pouvoir participer donc bépp yoon wu nu ko may rek ngir mu bañ a am fi mu ne ni gàllankoor ci participation ci élection yi mi ngi koy exploité. mais ndax finalement dinañ mën a valider candidature am ndax dina ñëw yooyu yeneen question la donc looloo nekkoon sujet tey laaj population bi rek ñox ñu seen xalaat par rapport ak renoncement maanaam nationalité française am am nañu ko rafetlu am na ñu xalaat leneen looloo nekkoon sujet tey di lañ jox dig daje ëllëg ci yeneen sujet par rapport ak actualité ci seen petite promenade du jour